jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy géejawaay ñëw def benn reportage ak yéen mbokk yi mooy li nga xamante ne moo dal Alioune Sarr muy coronavirus tey loolu la ñu ñëw tey def si benn waxtaan pour ak askanu géejawaay ku nekk wax sa xalaat jërë ngeen jëf daw la ngeen teewlu Mak TV Sénégal Mak TV international ngeen daw suivre li nga xamante ne mooy information yi ñu leen indil tey asalaamaaleykum papa maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay dina laaj tur ñu dégg benn actualité bi nga xamante ne mu ngi am jamono ji muy daw ñu si li nga xamante ne mooy maire Guédiawaye di Aliou ñu ne dafa am feebaru coronavirus mais boo xoolee que population Guédiawaye am nañu d'accord am nañu d'accordutu lan moo waral loolu. waaw ah Aliou Sall de mbindeef la comme nit ñi day feebar war naa feebar après day wéer day lekk day xiif day mar day gëmmeent comme doomu comme ñëpp la dégg nga moom béyu ndax après maanaam feebar mbir sunu borom la ku ko neex la koy topp. du Aliou Aliou Sall du du Macky Sall du keneen waaw moom kenn mënu cee mucc yàlla moo koy dogal ku mu ku ko soob après mu teg la ko waaw yàlla moo koy tege nit tegewu ko waaw moom kenn mënu cee mucc waaw même même bu feebaree comme xibaar bi ni ma ko déggee noonu laa ko déggee mais nag mais mais feebar moom jombul kenn waaw waaw même tamal tamal gëm naa ni même que suñ ko waxee am na waaw man sama gis-gis moom mooy loolu ndax feebar moom jombul kenn. waaw ginnaaw nag après bu feebaree nag moom de feer bi su fekkee am na yàlla na ko yàlla wéeral mu delluwaat ci kàttan mu delluwaat ci sagoom mën a dem liggéeyaat bu fekkee dellu ko tamit après yàlla yàlla ñi mucc moom ñi mu dal ak ñi mu dalul ñëpp même ñoo ci yam maanaam ak njàmbaar eh, taxu cee mucc yaafus taxul mu dal la. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu kilifa bi. maa ngi lay fay ça va grand. waaw tur bi. sëñ ñi bi. waaw bon bon comme situation bi ni mu demee nii actuellement. Euh, vu mesure yi nga xam ne moom la ministre bi joxe ñu yor wàllu santé mesure barrières yi muy wàllu takk masque wàllu raxasu wàllu distanciation bi ah bu loolu lépp amee ñu tey ñu xëyee ñu war ko respecté te yaakaar naa bu ko askan wi war a respecté ñi jiite euh, askan yi ñoo ñoo ci war a jiitu kon donc bu ñu xëyee ni ñu Aliou Sall euh, dafa am coronavirus man bi ma ko déggee rajo daf ma yéem. li ma si njëkk a yëm mooy naka la mën a dale Alioune Sall wax nañ ni chauffeur moom la dal mu wàllu jabar ji mu wàllu Alioune Sall loolu bi mu amee man bi ma xalaat ma ne kon ñoom est-ce que ñoom ñu ngi doon respecté réellement li ñuy sant pour ñun ñu respecté ko parce que Alioune Sall maire la jiite ay maire am taxawaay bu mu taxawee ci géej waaye am taxawaay bu mu taxawee ci dëkk bi yaakaar naa bu ñu joxee ay mesures à respecter ñoom ñoo si war a jiitu kon donc man bi ma ko déggee li ma njëkk a xalaat mooy est-ce que Aliou Sall respecté na mesures yi mook ministre mook jabaram ak chauffeuram bala ngay digle sangaay nag da ngay sangu. maa ngi lay fay. tur bi nan la. soxna Mously ah man de wax dëgg yàlla gëw ma ko. <laughs> gëw ma ko dox dëgg yàlla ndax maa ngi dégg ñu naan Aliou Sall euh, dimanche tax gisee naa ak Macky Sall xanaa kon bu ko dalee dina dal Macky Sall ah ah gëw ma ko di wax dëgg yàlla ku ko gëm na gëm nga ko man nag maa ngi koy ñaanal jàmm ni ko ñaanal bañ koo dal bañ a dal kenn feebar bi gaa moom am na moom waaw am na dëgg waaye nag Alioune Sall moom gëw ma ne moom wax dëgg yàlla dal na ko wax dëgg yàlla. gëmoo ne dal na ko mais après ku lan moo indi psychologiquement lu tax euh, nit ñi gëmuñu ne moom war na mën a feebar wala dafa yombu trop la yomb na yomb na yomb na Alioune Sall dimanche gis naa ak Macky Sall xanaa kon kay ak feebar li ñu waxee noonu la gën a gaaw a euh, wàllantee xanaa kon kay bu ko jàppee jàpp na Macky Sall yéen tamit nag. asalaamaaleykum yaay béy maa ngi lay nuyu. ñooy fay. tur bi nan aa man maa ah, gëm nañ ko na dañoo dégg yeew gi média yi ñoo ko déggandoo gëm nañ ko xanaa loolu duñ ko wax te amul gëm nañ ko de gëm nañ ne mi ngi hôpital ñun loolu lañ ci am comme li ngeen ci am mais gëm nañ ko lu wér la ndax ñëpp koy wax moo fiy coow waaw. yal na ko yàlla wéral rek te bañ ñu koo teg rek ci barke Seydina Mohamed yal na ko fi yàlla jëlee teggil ko teggil ñu ko barke Seydina Mohamed. waaw man na tudd. man Anna Gomis wax dëgg ne yàlla gaw ma ko ay balaa balaa la gaw ma ko de feebar bi dal ñëpp ko dal mais lu ma gëmul la di ma ko man forcément man gaw ma ko moom gaw ma a peut-être daa ànd politique ñoom mais lu ma gëmul gaw ko daal gaw ma ko dafa feebar ko gaw ko yàlla xam na ne gaw ma ko maa ngi dégg nit ñi di wax nii di ko xool si réseaux sociaux mais gaw ma ko asalaamaaleykum mbokku internet yi li ngeen indiloon tey si ay yi nga xamante ne actualité yi nga xamante ne mooy xew tey fi nga xamante ne mooy géejawaay ci reportage bi ñu def tey waxtaan askanu géejawaay ci li nga xamante ne moo dal Aliou Sall mooy fer boobu ñuy wax muy coronavirus am na ñoo xamante ne gëm nañ ko am na ñoo gëmuñu ko mais lépp lu ci mënta am rek dem leen ngeen compter Mak TV Sénégal Mak TV international di ne ci am lu wér te wóor jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér bu baax di leen baalu àq